fa jafe-jafe ñu fay jànkonteel euh, ci coronavirus bi nga xam ni nekk na musiba foofu ñu bëri ñu ngi ciy dee euh, xat-xat yi nga xam ni doomu Sénégal yooyu nekk nañu fa euh, jombul xanaa lii di nga nangul président li mu wax ni amuñu kàttanu dem jëli leen moyen yi leen mën a jëli ak bu ñu ñëwee situation yi ñu leen mën a teg ba duñu wàll keneen loolu xanaa dinga ko di nga ko nangul président moom ci wàll boobu. Pape Pape xam nga constitution lu mu jox président de la république. Mhm. président warul di wax mënuma ba ci réewu jàmbur ma ne président du wax ne mënuma président du wane faiblesse am ci njabootam président du dara lu ko lu ko jubee bu ko ëppee doole rek mu ne gars yi mënuma ko ragal daw président du def loolu président day wane ne taxaw naa ci. bu dee dafay wax dëgg nag. ma ne dëgg. saa askan nga wax leen dëgg bañ leen a bañ leen a wax. mënuma ci dara c'est pas xam nga lan mooy mënuma ci dara. mënu ci wax. mën na leen woo téléphone defal leen. mais gis nga li mu ci def. waaw defal ndànk rek Pape. koppar yi mu leen jàppale ñoom ñëpp. Pape xam nga Pape déglu ma rek Pape xam nga seen yaay yi ak seen papa yi waxuñu koppar am na ay dëkk ñu dem jëli seen ay nit c'est pas la première fois lii am lii am Sénégal à chaque fois que de Sénégalais am na ñu problème ci extérieur dañ leen jëli Tugal France Italie Libye Congo. Euh, Centrafrique dañ leen jëli dañu jëli ba situation Haïti Haïti ay étrangers africains am ci coono ñu jëli leen andi leen borom borom président de la République day protéger citoyen da ci jéem amul avion mu leen jëli mais du cent personnes treize lañu xaj nañ ci avion bii du ñu ngi préparé fii bu fi gaa yi ñëwee ñu ñëw ñu dugal leen fenn seet leen ba pare ñu soog a dem du am na fi nee nañ ministère de la santé monté na loolu man bi may wàcc ci aéroport yu barka démb jógee jógee jógee jóge Banjul ñu ngi fa taxaw di seet nit ñi te pourtant Banjul la ñu jóge mais amoon na fi ci Ebola ñu jël ay affaire def ko taxaw ñu xam ne ministère de la santé taxaw na président taxaw na mais président dafa démissionné dafa démissionné. et la question il se pose sénégalais yooyu ñan lañu ñan lañu c'est une question maintenant comme affaire bi Sénégal daf ko partagé ànd deux ñi ànd ak moom ak ñi àndul ak moom ñan la. yaa ngi xóotal wax ji de. mais mais moo am parce que président. da dem ba bëgg a foofu bëgg ci dugal oh, politique. Pape may ma Pape. non da dem ba bëgg ci dugal politique. Pape xam nga li may wax ñi may naa ko Pape. waaw waaw man maay insisté yow doo insisté yow. d'accord Pape l'insistance c'est moi c'est pas man la. dama ne ne président loolu moo ko war. xam nga xam nga may may may ma may ma tuuti Pape ma tuuti dinaa ci taxaw dinaa loolu tax ma ci taxaw xam nga nit ak doomam am na bu fa àggee mooy daw sawee ji ko néeg tàkk na yaay walla bàyyi daw dugg ci biir pour sowee. Ah, gis nañ ko président Abdoulaye Wade ak Karim Wade ci Tamaro. waaw déggul ma ma ne sa papa ak sama papa. gis naa ko laa wax. Ah, waaw daa ma dégg ma ne loolu. Mhm. sa papa ak sama papa ak sama yaay ci am ba ma amee ay jafe-jafe sama yaay def ci taxaw sama papa taxaw ci waxatuma la ak nag président de la nga xam ne mooy bàyyi ñëpp. gisoo bi problème yi amee rek bi doomam demee États-Unis est-ce que man sama doom dafa amoon ay garde corps yu ko protéger wala Karim Wade dafa ko amoon ba muy jàng wala doomu Abdou ko am ñetti GIGN la amoon. moonte bon li ma la xam na xam nga nit il faut ñu ñemee dëgg pour génn ci situation bi ñu nekk ma ne. Mhm. xam nga yaay bu doomam rëcc dugg ci kaafu gaynde guy nelaw xam nga lu muy jëkk def moom jéem a daw jëli ko. léegi lan nga bëgg a wax foofu. mu def ay ma ne politique ndax ñooñu ñan lañu lan nga bëgg a wax foofu. Pape xam nga li tax li tax nga posé question bi yow sa intérieur mooy da nga yëg ne warul woon def nii wax ma ko boo ko ñemee wax fii nga ma waxal la ko. alors maintenant moom ci boppam dafa amoon ñetti yëf xaritu France lañu président Macron dama am ñetti Sénégalais fukki Sénégalais ak ñett naka laa mën def ba yow booy indi sa nit nga indil ma leen téye leen France sunu coopération maye na ko ak France nous avons versé notre sang pour la France. war na France. ah loolu looy ñaan la du loo am. waaw def mais xam nga am. amul mais loolu looy ñaan honnêtement Pape xam nga lan nga amul. xam nga lan nga amul li sa xarit amul wala sa mbokk amu ko am na ko am ko am bore un million un million boo léegi dina ko fay parce que ay mbokk am dañuy taxaw. beneen pays beneen pays beneen pays mën na ko wala boog xanaa bu ñu amul avion médicalisé avion médicalisé avion yii rek la de dafa am lu ñu ciy def rek yóbbu ko dafa am lu ñu ciy def rek yóbbu ko. waaw mu yóbbu avion ñu def ci loolu yóbbu jëli leen. mooy muy avion spécial. waaw c'est xam nga loolu itam bu waxee ni amuñu ko xam nga ni munu ko. ma ne Pape xam nga avion yi dem jëli loolu du ay avion yoo xam dañ leen di construire spécialement pour ça avion la bu ñuy jël am lu ñu ci def defaraat ko mu dem jëli leen dugal ci ay médecins ak ñoo xam ne nii lañ leen def ñu ñëw dellusi ko ay précaution la ñuy jël jeex na avion yi mën na ko def bu ko deful am na xarit mais am na mbokk. ñu yëg ne moom moom woo na Chine président wax na ak président chinois bi ne ko dama fa am fukki nit ak ñett dama bëgg nga indil ma leen li ma mën a defal ci àdduna bi loolu ci la bokk ñu yëg ne président taxaw na mais xëy rek nelaw lekk sa lekk lekk sa benn croissant naan sa fonde de voilà mënuma ci dara quoi dafa jafe mais li tax li li tax mu jafe moo tax ñu teg ko fi dañ ko teg pour mu jafe mu réglé ñu ko. mais teguñu ko bu doon lu yomb ñu jox ma ko donc loolu laa ci mën a xalaat te loolu la nit ñi aussi xalaat dégg nga seen mbokk yi li ñu wax dañu nañ leen indi seen ay doom. bu fa sama doom nekkoon wala sa doom nekkoon du ñu nelaw Pape. c' est un peu très compliqué. d' da nga jàpp ni daal donc président dafa démissionné ci wàll boobu. loolu nga jàpp bu wóor la def nee mënuma ci dara taxaw loolu tax ñu woon indi ko ci làmb ji. ñu ngi koy indi ci làmb ji da ko fi teg du woon pour ñoo rek mënuma ci dara taxaw déedéet pour mu bëre la xeex ak difficulté yi ñu jàppale ko ci en ce moment nit ñi taxaw jàppale ko ci lu dafa tële woon ci mbalit mais jóg na taxaw ni nit ñi fekk si nañ ko yi daf leen woo dafa wootee bi mu wootee nit ñi wuy si nañ ko maintenant on verra le résultat mais dafay wootee Euh, ba tey lu jëm ci wàllu question sociale yooyu nga xam ni wax nañu lu jëm ci coronavirus bi am na leneen loo xam ni tam ñu ngi koy gis euh, muy li sabab mbiru ñoo lànk ba ñu jàpp ci Guy Marius Sagna mu ne ci kaso